wér la. suñu doyen yi ma tànn koy nuyu bu baax. ñëw yëpp xam nga ak population bi fi nekk yëpp xam nga di ñëpp quoi ak 200 pour cent bi waaw. waaw non waaw. ñun bëree nañoo keneen ku mbër bi mbër bi duñ duñ tëdd sax di xalaat wax dëgg fa yàlla waaw duñ tëdd sax di waaw non moom champion la waaw champion la ndax mu nekkoon champion du ma jël parce que dama am problème adversaire sax moo tax mu demee nii quoi wax dëgg fa yàlla. am <laughs> saa bokkal mi bëree barki dem ah, ma. xam ñoom ñaar ñëpp laa daan. dama ko dóor ba mu wàcc. dama dóor mu nelaw mbër bi dóor ak mbër bu dul dóore yëpp <laughs> mun naa bëre yow. mën nañoo xaar mu vite fait comme si yow ak Thiandoum. ah waaw esthete incha allah moom yàgg yàgg esthete lay jëm moom. loolu moom amul sax ay demal te ñëw. non bul sonn sax incha allah. ñun moom xamuñu lu yà xamuñu lu yàgg quoi xamuñu lu yàgg. non booy bool yow kii waa kii cës ki jaaxaluñu sax. gisoo ni mu def Mbaye Guèye Junior. wa waaw mais <laughs> ah, ñaari ah. paa yi la rek moo tax. xeeb nga waaj de. non mais ñun luñ liggéey non romb nañ boy na romb na booy. samay doomu nday amburas ak sama gars yi entourage bi bu baax a baax di nuy presse bi nag bu baax. waaw lu ñuy waaj la 14. lu yaatu nag di ñaanal soog amaa leen ndam incha allah mais ñu ngi waajal lu ñu ngi ñu ngi waajal lu yaatu yi nañ kontaan incha allah. auzu bisimilah rahmaani rahiim maa ngi sant yàlla di julli si sant sama ñaari waajur di leen nuyu bu baax di nuyu presse bi mhm. xam di nuyu suñu grand makan ba Abdou xam di nuyu Thiam CNG xam di nuyu journaliste yëpp nag mhm. di nuyu waa Pikine bu baax waaw maa ngi nuyu waa Pikine bu baax comme ni sama adversaire ñëwul moom nooy woote rek. waaw ah, woote. waaw ñuy woo waa Pikine nag. waaw di woo suñu grand Bafou ah. ñu ngi koy woo magu yaali ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax président ñu ngi lay woo bu baax nag si laamu ji si Amath Tidiane Thiam ñu ngi lay woo sama grand frère Mbaye doomu Paa la transitaire maa ngi lay woo di woo euh, Jéeri Boson di woo Pikine nag tali bees Icotaf lu diis tali bu mag boobu Coor euh, waa école neuf xam nga maa leen di woo di woo waa Kakuraak. di woo waa Bundu Pikine di woo Pikine yëpp parce man doomu Pikine la keroog ma am benn grand euh, bu ñëw seetsi ma ni ma njaga la moo tax yow nga nekk doomu mbër ba pare affaire yi demee nii ma ne loolu sant yàlla la parce que ay samay nawle nekk ci làmb ji te mën naa ni doomu mbër yi sans ñu am ñoom ba génn dafa tombee ñu seen waajur seen waajur yu góor maanaam nekk seen digg doole taxawu leen mm. mais man bi may ñëw caat laa fekk naa paa bi màgget na ba pare feebar daaneel ko ma sant si yàlla bu baax mais onze combats koo def am benn mm. defe Abdoulaye Khan moo war a taxaw si mbir yi ak suma feer la sax ma di ko wax ne ñun fii ñu ngi lay ñu ngi lay jën jën ñaan quoi ñu jën ñu taxawu quoi parce que dañuy indi li gars yi di indi si stade bi rek la ñuy indi ndax ñun maanaam Pikine mënoo faa dugg tudd mbëri te doo moo si boole loolu mënul nekk di ñaanal sook suma grand frère lenc yàlla defal leen ndam bëri fi ñëw yëpp yàlla may leen jàmm parce que ñun ñëpp ñoo far suñu paree ñooy génnaat di nekkaat si mbedd bi di tasewaat te jàmm mooy am le 14 nag maa ngi woo waa Pikine yëpp waa Curuba fàttewu ma leen ah journaliste yi nag maa ngi leen di bëggee parce que lamb bu yegsee fii non ñoom nañ ci part parce que ñun bu ñu demoon ba bu ñu demee ba fu ñu romb ñu naan diwa ñu xam nga journaliste yi la sur internet yi si nuyu di nuyu waa Pikine bu baax nag di ñaanal sama papa am wér gudd fan. waa sama adversaire nag lu ko téye yàlla na doon jàmm. parce que làmb la daal maa ngi ñaan yàlla def la man ndam ci kattanu yàlla. jërëjëf di nuyu waa Kër Diouf di Seck. ñii sumay waay lañ waaw waaw waa fan Pape Seck waaw yéen samay grand ngeen mais kontaan naa si yéen nag bu baax a baax a baax su ma limee juum yéen presque su ma limee juum gaay waaw ñëpp a ngi si biir waaw kontaan naa waaw waaw